الجنة فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء مبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين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 fan yi nag incha allahu taala xam nga ñu ngi jublu ay fan yu am solo fan yu tedd ci lislaam fan yoo xam ne jëf ci rëy na lool ci lislaam te mooy fani tabaski weeru tabaski bu teroo xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàngale jàngale mu rëy foofu nee na ay fan la yoo xam ne jaamu ci yàlla mu ak jaamu yàlla ci yenn yenn fan ñu ne ñu ne ko ba ci jihaad mu ne waaw waaw nee daal même xanaa ki génn di jihaad yóbbaale alalam ak lim am lépp dara dellu suut kooku dong moo xam ne lim def yem naag jëf-jëf yi baax ci fukki fan yi jëkk ci tabaski waaye faaw buñ ne tabaski xel yu bare bari day daal daw rek wuti eh, mu ngoog xarmaag ya ñuy solog yooya waaye dañoo war a njëkk a xam dëgg-dëgg tabaski lan mooy cosaan li aay ñu jàng sànq ci sën yenteel ibrahim alayhi salaam ah suñ borom tabaraka wa taala waxaan naa leen ni leen ibrahimu xalilullahi mooy parrain wu jullit ñi yàlla moo parrainé jullit ñi sëñ ma ibrahim waaw millata abikum ibrahim waaw yàlla nee na ibrahima mooy seen parrain yéen jullit ñi mooy seen baay lu mu nekk suñu du du deret baayu baayu pas-pas baayu tawxiid la suñ borom wax ne baayu principe waxal naa ne yàlla du tànn du topplu nit du topplu personne mais principe lay topplu tabaski nag philosophie bi mooy suñ maam Ibrahim day xam ngeen ne dund na téeméeri at ci li téere yi wax wala lu topp te amul doom gannaaw loola suñ boroom may ko doom te moo ko ñaan wu ne rabbi habli min as-salihin kon ndekete nit dafa war a ñaan doom ju baax ndax yàlla fa mu denc ruux ya ca xam-xam bu sell bu tedd bu yaatu ba xam na ñu war a judd nu ñuy mel kon ndekete nit daa war di ñaan yàlla mu may ko doom ju baax rabbi habli min as-salihin mooy may ma ci ñu baax ñi may ma njaboot gu baax loolu nit da war di ñaan su njaboot gi juddoo itam da leen war di ñaanal da leen war di ñaanal waaw rabbi habli min ladunka zurriyatan tayiba innaka samiu duaa abi doon tee ko wax yàlla may ma njaboot gu tedd gu teey ndax yow day ku la ñaan wala mu woo la nga dégg ko tabaraka wa taala suñ ba tabaraka wa bi may suma ibrahima doom jooju muy ismail ah, ba doom ji nekk mag ci tënk ba tàmbali mën a ànd ak waajuram di ko mu koy yónneeg jox ma lii nga xam ne foofu la doom tàmbali di neex doom bu nekkee liir ñu koy fi tas muy ree dana neex sax ci xol waaye bu demee mën a dox mën a wax nan papa nga naa ko demal jox ma lee muy dem di indil boobu la tàmbali nag di dugg ci xol bi suñ borom tabaaraka ko taala nag daal di xëy ne suñ ma Ibrahima sa doom ji nga xam moom dong nga am muy doom ju góor nga bëgg ko lool rendi ko rendi ko sëñ Ba Ibrahima ci ak niteem ak tawxiidam ju dëgër aku ngëm yàllaam aku am responsabilité am aku fonk njabootam dafa woo doom ji waxtaan moom ci ndigalul yàlla yi ni ko suñ borom kat daf ma wax ne ci gént te géntug yonent wax yu la daf maa wax naa la rendi automatiquement doom ñu ne ko baay defal li leen la digal ma fekk may aji muñ mbokk julli bu ngeen bëggee xam suñu maam Ibrahima fan la mujj ak suñu maam Ismail da ngeen ñu topp jitaay bi jëm dañ lañ ko tënkal bañ xam philosophie tabaski mooy lan ñu door a ñëw nag ci incha allah atte yi ak la ci jëm ci yeneen jataay seen mbokk la woon fii ci seen télévision d'espoir mooy Tawhid TV Serigne Daara Makhtar Sill ànd ak technicien bu jàmbaar macha allah Abdul ak Abdoulahi Wadd yàlla yàlla dëgëral leen sàmm leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.